Madame la Présidente, Madame la Présidente, euh, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les collaborateurs des ministères collègues, euh, Monsieur le ministre, euh, je vous connais. Vous avez les compétences et la carrure pour diriger ce ministère, pour diriger un ministère quel qu'il soit. Je profite de cette occasion d'ailleurs euh, pour préciser un certain nombre de choses. Euh, les hauts cadres de l'administration sénégalaise sont des cadres compétents. On ne peut pas développer le Sénégal en faisant venir des gens de la Lune ou de Jupiter. Ce sont les Sénégalais et les Sénégalaises qui doivent développer euh, notre pays et la ressource humaine existe. Je crois que c'est très important de bien distinguer euh, les critiques qui sont formulées sur les orientations, les politiques, la gouvernance, etc., et les personnes. Ça me paraît très important euh, ndax nit ki moom ku ne am nga sikk waaye eh, man sama sikki bopp moo ma doy mbubb ak tubéy ci lay wax bu ku ne yemoon ci say sikk di ko jéem a lijjanti lu bari dina avancer eh, monsieur le ministre les problèmes sont très nombreux vous avez plus de quatre-vingts inscrits te ku ci nekk ay jafe-jafe ay doléances lay poser le budget que vous avez est important mais même bu ñu ko multiplier woon par dix je ne suis pas sûr que les problèmes seraient réglés euh, dans les conditions actuelles moo tax ma yaakaar ne dañu war a xoolaat naka la ñu mën a régler problème mu njàngale ak jàng ci Sénégal li ñu war a jiital mooy delloosi rapport de commission finance bi wax na ko delloosi li ñu naa confiance ci gone yi dama dem Amérique sama benn jarbaat ci école ma laaj ko lu ngeen jàng tey mu ne ma histoire ma ne ko lu ngeen jàng ci histoire mu ne ma la guerre du Golfe ma ne ko lu ngeen ci jàng mu ne l'Amérique a gagné mane ne ah bon ak lan mu ne dinañu jàng aussi deusième guerre mondiale ma ne ku leen ci jàngal mu ne ma l'Amérique a gagné ku juddu màgg yaru ci l'Amérique à gañe mënuta xalaat leneen nun fii lu ñu nuy jàngal nous sommes un pays pauvre nous sommes un pays pauvre nga juddu ci màgg ci yaru ci pays pauvre ce qui est faux d'ailleurs ce qui totalement faux Donc les gens, les enfants finissent par perdre confiance en eux-mêmes. Non, euh, bon, ma yem foofu alors monsieur ministre loolu yaakaar naa ne li koy indiwaat mooy ñu defaraat njàng mi ak njàngale mi xam nga wax nañu déficit d'enseignant déficit table-banc déficit d'école nga wax li nga ci def et cetera Bon, c'est vrai, quand tu compares, il y, y, a effectivement des progrès. Mais sans relais, l'année dernière, il y avait 2 500 000 élèves, enfin, Khalé, qui ont école et accès. gis naa ci rapport bi ren un million cinq cent mille je pense que en une année on ne peut pas régler un million mais mettons deux million donc table banc yi ñuy wax déficit yi ñoo yooyu mooy ñu nekk déjà ci école yi mais les deux millions qui sont pas là-dedans c'est pour cette raison que bu ñu nee euh, zéro abri provisoire monsieur le ministre je ne suis pas d'accord abri provisoire définitif oui nañ ko rectifier waaye bu ma sañoon man bépp penc ci Sénégal école lay doon penc mu ne garab ga fa ne école lay doon moo xam ñu mbaar ko ñu bañ koo mbaar école la war a doon am na ay méthodes soxlawul ñu di ci sore pour que vraiment d'ici cinq ans képp ku ci toll mën a jàng ko langue nationale li nga nàmp nga mën koo bind man koo jàng en attendant évidemment je vous remercie président c'est dommage merci merci beaucoup madame la présidente monsieur le ministre de l'éducation monsieur le ministre du travail monsieur le directeur du budget messieurs et madame les collaborateurs de ministres maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar monsieur le ministre daaw dama ne la woon ce ministère bi ñu la dénk muy éducation dénk nañ la xale dénk nañ la alal dénk nañ la suba may rafetlu programme éducation aux aux valeurs et à la citoyenneté ñaaxoon nañ ci ministre de la femme pour le retour du parlement des enfants nangul nañu ko et luy am la donc dañ lay ñaax yow itam peut-être nga rapproché wu ci moom ak ministère de la jeunesse pour que programme boobu nekk lu am solo parce que wax naa la ko commission xëy na américain bi li tax mu mu sànq suñu tonton de croix ñëwaat na si dañ ko jàppal ne moo gën ñëpp te ñun suñu éducation Sénégal wan nañu ne suñu si góorgóorloo malgré les faiblesses de, euh, la faiblesse des moyens et des ressources des infrastructures ainsi que les défis buñ ci góor góorgóorloo parce que on n'est pas complexé devant le blanc bu ñu demee ci examen du ñu raw ñoo leen di raw donte ñoo ñu ëpp ay ressources on est fier d'être de, de purs produits de l'école publique sénégalaise mais dañ ñu ci tàggat ñu amoon ay prof yoo nga xamante ne dañ la naan mën nga ko te soo ko mënee da kay koy def qui ma ci profité di rendre hommage sama benn prof ma Massamba Gueye nga xam ne da daan jël de ses moyens di ñu yóbbu musée moo ñu xamloo lan mooy musée di ñu yóbbu ci théâtre xamloo ñu lan mooy conte et cetera ñuy ñaanaat ce de professeur et d'enseignant année dernière dañu dem benn CM bu nekk fii parcelle on faisait benn exercice sur le leadership avec les profs ñu laaj leen fii ak 5 ans lan ngeen bëgg fan ngeen bëgg nekk ñoom ñëpp ils di dit quitter pour montrer que ni xëy na démotivation mi ngi foofu donc je pense il faudrait faire renaître cette cette fibre d'enseigner dans les écoles mais bi ñu waxtaanee ak ñoom def ak ñoom ay exercices ñu leen on leur a dit de sortir de leur zone de confort ñi ay orphelins lañ woon moo waral peut-être ils sont recroquevillés sur eux-mêmes ñii xëy na dañu vivre ay situations yoo xam ne l'école ne les écoute pas peut-être ki fa principal bi xëy na moom affaire administrative yi rek moo ko yitteeloon mais bi ñu waxtaanee on a vu organiser leen ci école bi des élections avec les élèves élèves yu participer ñu jàngal leen lan mooy gouver euh, gouvernement scolaire lan mooy transparence lan mooy démocratie je pense que yooyu dafa war a ñëwaat ces ces outils de leadership xëy na du du tey la investissement bi di am njëriñ mais c'est dans le futur donc je pense qu'il faudrait renforcer ces ces ces ces outils euh, extra euh, école peut-être pour que nit ñi gën a gëm seen bopp parce que balaa ngay xam sa gëm sa bopp da ngay xam sa bopp te loolu valeurs yi ñoo koy prodiguer muy benn ñaar monsieur le ministre Covid bi enseignants yi liggéey nañ ci liggéey bu takku ñu ngi leen ciy félicité waaye nag di leen wax ne buñ bàyyeeku bu kenn bàyyeeku parce que ñi ngi koy wax élèves yi dañ leen di gis parfois ñuy jàngi duñu takk masque enseignants yi nañ ma ko baal mais en fait c'est des comportements yoo xam ne mu ngi ñëwaat te Covid bi mu ngi jël ay ascension yoo xam ne ñu yàlla mu yegg fa. beneen bi monsieur le ministre mooy ñuy jaale ay Aïssatou ak Ngoné ñi nga xam ne dañu perdre leur vie et je pense que aujourd'hui suñu dëkk bi war nañ di rendre hommage genre de personne pour que ni ñu di am lu goût de servir leur république. tey je pense que war nga mën xalaat benn mécanisme boo xam ne dañ koy jaajëfal dañ leen di jaajëfal. parce que ay xale lañ woon ba pare nekkoon di dem di defi seen liggéey ñu génn àdduna war nañ leen mën a jox des médailles pour que ñeneen ñi parce que dañ wax ñun suñu dëkk parfois duñ ñu delloo ñu kël comme il se doit beneen bi monsieur le ministre ay doléance la jëm ci école Mariama Ba mur de cloture bi terrain multifonctionnel statut d'école d'excellence su Mariama Ba infirmerie bi ak logement bi lii c'est des Parcelles Assainies unité 13 mi ngi am plus de mille 200 élèves waane ba léegi école ba plus de 5 ans ñu ngi koy tabax yeggul donc monsieur le ministre donc je pense que balaa ñuy defaraat beneen euh, yeneen ni lycée ci biir Dakar nañu re nañu nañu jeexal travaux yooyu monsieur le ministre dama déggul bu baax xëy na dama bëgg am leerlu que ne il y a 330 000 déficit un déficit de tabac à hauteur de 330 000 pièces et bu ma déggee bu baax commission da nga ne woon ren 25000 la ñuy distribuer may laajte est-ce que dëgg la wala du dëgg su fekkee dëgg la il nous faudra 12 ans pour combler la gap en. Merci, chers collègues.